cheikh Mouhamadul Muntaqa xabdawallah waraa ak ci teewaayul sunu sang bu tedd bi sëriñ Bachiru Mbakke mu cheikh Mouhamadul Fadal ci kilifteef sëriñ Mouhamadou Abdullahi Mbakke al imam ak ci njiital sëriñ cheikh Xaadim Mbakke ni cheikh Mouhamadul Muntaqa jiite lii di académie minal baqadim li ulum islamiya ak sëriñ Muntaxa Mbàkke Mamoor ak mboolem mbokk yi boroomi xam-xam te séq ak ñoom liggéey bu màgg bi ñu ngi leen di nuyu di fàttali ni dellusiwaat nañ ci yitaay yu màgg yi nga xam ni baaxoo nañ di def at mu nekk ñu koy amal fii ci jumaa yi Daarul Minan tey jii bisub ajjuma di ñeenti fan ci weeru koor wi tombeek junne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi wa méngoo it ak fukki fan ci weeru mai 2019 ci loolu ni ñuy ubbee jitaay bi mooy danañ jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Abdullahi mu joxe ay baat yoo xam ne mooy ubbi waxtaan yi waaye it fàttali mbokk yi solo si ak yitte ji nga xam ni lu mel nii war nañ koy bari ci dëkk bu tedd bii di Touba ci loolu it tomb biñ nar a waxtaane tey muy bu am solo te yitteel daanaka mën nañu ni kuy teg tànkam ci kaw suuf te mooy bennoo ak jéggalante ci biir jullit ñi koy seet di sëriñ Fallou Bousso Hassan di def waxtaan wi di ca feggoo ak sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Basiru Moor kon niñ ko waxee rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Abdullahi mu ubbil ñu jotaay bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأل محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى nuur yi mu diin xaq ñoo ko ñëwaat di ñu kulli yi loolu kër yi ak maa ma woon dafa inna xayral xadiisi kitaabullah wa xayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muhdasaatuhaa kullu muhdasatin bid'atun kullu bid'atin dalaalatun kullu dalaalatin fi nnaar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ku jullit di ci teew leen nuyu leen ziar di ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Bachir bi ñu Cheikh Mouhamadou Fadil ñu bëgg jataay bi bi Cheikh Mouhamadou Mountakha moonu waraw bi bi ñaanal ñu tàmbali liggéey bi naa booba noo ngi soññ bokk jullit yépp ñu teewe jataay ba ñu koy topp ci bitti mbokk def suñu yitte ci diinu tax a jóg mooy mooy njàngaleem xamal lii ay jataay jàngale rekk la ñii fi ñëw di mu defal waxtaan wi di mu defal liggéey bi duñ ay animateur yoo xam ne animé jataay rekk lañ tax a jàngalekat lañu yoo xam na seen walla ci yoon wi mooy waaru woow yi sëriñ bi fonkoon lool mooy waaru jàngale ñu jàngalekat lañ ñoo xam dañ nekk dañ koy jàngale ñoo fi ñëw dinu dinu dinu liggéeyal liggéey bi ñu soññ suñu bopp ñu soññ bokk bokk jullit yëpp ñu di ko topp te di ko di dafa yitte fas ku jariñoo itam ndax ndax loolu rek moo tax moo tax sëriñ bi santaane ko eh, kenn ku ci nekk ci ñun daa waroon na takk eh, tukki sàkku xam-xam na loolu yitte jamono mayeetu ko jotaay yu néew yu gàtt yi li eh, fiy bàyyi ko ci xam-xam kenn ku ne mën na ko jëriñoo nañ ko fas yéene jëriñoo ñu ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp defal nu tawfeex koor gi nu tàmbali suñ borom nangul na ko defal na ci defal na ci ndimbalam zaahiran baatinam mu war ko mu war ko ba mat tam nangul na ko na ko bépp jullit kon nu jox kàddu gi sax Amadou Basiir ubbi nu jataay bi te ñaanal nu ñu tàmbali liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aoudu billahi min shaytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin bokk jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam seen Cheikhul Xadim leen di nuyu ñëpp baax a baax a baax te leen sant bu baax di leen ci ndaje mi nga xam ne amal nañu ko fii fi Daarul Minaan te dara waral ko dul dundal li nga xam ne moom la ñu fi sañ si moom la suñ bàyyee ñu war koo dundal te ñëpp war ca def yitte bu te muy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyi ko ci seex mu Mamadu Murtadaa yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko bu baax a baax maa ngi koy sante bu baax di ñaan yàlla ñaan mu yàgg fi daje mi nag dama yegg si rek wax naa ne tàmbali ko waaye noonu ngi ñaan ci barke sëriñ Touba yére ji nga xam ne sëriñ bi am na ko digle ko te nu fa séen ci aw yàlla na suñu borom dimbali ba jaar ci ni mu ko bëggee ba yeggale ko fa mu bëgg mu yegg fa barke Cheikh Khadim sant nañ ci bu baax nañ gërëm ñi ko taxawal yépp di leen ñaanal yàlla suñu borom bool boolu ndimbal ba ñu am ci ngërëmul ngeen jëf kon ginnaaw bu sëriñ bi ubbee jitaay bi ci ñaan yu am solo yooyu ñuy fàttali ni waxtaan yi mën nañ koy topp ak yi weesu ci situ académie Minane TV ak ci. Académie Minane TV li ëpp ci waxtaan yi jàll fii su ngeen demee di ngeen koy am niki istiqama point org moom it li ëpp ci waxtaan yi jàll fii moom it man ngeen ko fay topp mbokk yi dañ koy jàllale deme ni Murid TV siiwal net Mouridia info ak Bichri TV Bawal Média ak Bawal Média point fm ci rajo yi yeneen rajo yi dañ koy jàllale ci waxtaan yi nga xam ni ñu ngi koy amal fii kon ñu bàyyi sëñ Abo Mbacke mu ànd ci ak sëriñ Fallou Bousso Hassane bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar leen ndokkeel ci weer wu mag wi wu barkeel wi di jiital ci loolu lépp kilifa yoon wi di Serigne Mountakha di ñaan sunu boroom gën ko fa yàggal te gën ko wéral di ziare bu baax kilifa gi di sëriñ Mouhamad Abdullah ak kilifa yi mu nekkal ci jataay bi yépp jataayub tey bi mawdu bi tam bi ni ko sëñ Muxtaar Seck waxe mooy alwaxdatu wa tasaamuxu bayna almuslimin bennoo gi jullit ñi jullit war a bennoo ak jàmmoo gi ñu war a jàmmoo kenn ku ne xaajoo sa moroom donte wuute nañu ay gis-gis ci yenn masail yi ki ko war a waxtaane di sëriñ Fàllu Buso Xasan ñu bari xam nañ ko ci jox gu mën a jox waxtaan xàqam ba danay feeñ ci waxtaanam lu bari sabab bi tax ñu ñu indi thème bii nag tey mooy gis nañ ne daana daana am lu bari sax waaye dafa dafa raw jamono yi ñu toll muy par parloo bi ñuy seetlu léeg-léeg ci diggante jullit ñi di ko seetlu ci diggante ñi nekk ci tariqa yi élection yi jàll fesoon na ci lool mu war a delloo si sunu bopp nun ñëpp nag ci li nu sunu boroom digal muy bennoo li ci ëpp solo mooy loolu bennoo gi yàlla moo ko digle wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kon jullit bu ne war a def mbokkam ne boppam yonent bi soññee ci lu bari ba àgg ci wax ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa li nafsi amul ci yéen koo xam ne ngëmam dana mat lu dul bu <clears throat> lam bëggal boppam rek lay bëggal mbokkam ma waxoon ne jullit ñi dañoo war a mel ne birig yu ñuy tegale kenn ku ne di dimbali moroomam ma waxoon na itam mathalul muminina fi tawaadihim wa taraxumihim wa taatufihim masalul jasadil waahid maanaa jullit ñi ni ñu war a mel ci ànd dimbalante yërëmante boole seen bopp na mel na jenn jëm jëmmi nit jëmmi nit luy metti ca cër ba jëmm jëpp a ko yëgandoo sa benn bëñ rek bu doon metti sa say bët du mën a nelaw ma ne noonu la jullit ñi war a mel ñu war di ko bàyyi xel bu baax sëñ Tuubaa ci loolu la nekkoon wane woon na ne jullit ñépp ay soppeem lañu man amanu <clears throat> wa aslamu wa ahsanu wa ahibbati fi xayri rabbin yuhsin nee na jullit ñépp moom ay soppeem lañu ne boppam la leen def ni bennoo demee ci lislaam mel na ne bu lislaam doon am juróom-benneelu ponk bennoo lay doon boo ko doon xalaat ngir ñor ko mu ñor lislaam waaye ponki lislaam yépp boo ca delloo bennoo da cay feeñ ba ci julli boo demee ci julli boo beroo julli am nga julli <clears throat> waaye ñu ne la boo ànd ak mbooloo mi julli ci la tuyaaba ji gën a yokkoo na ko yonent bi waxee salaatul faddi afdal salaatul jamaati afdalu min salaatil faddi bi sab'in wa daraja boo ànd ak mbooloo mi julli bu dee yow dong boo ci amee benn boo ànd ak mbooloo mi danga nga am ñaar fukk ak juróom-ñaar lay doom lay doon ci tuyaaba kon loolu it di wane nu bennoo amee solo ba ci koor koor sunu borom mënoon naa sant jullit yi kenn ku ne ngay woor weer fukki weer ak ñaari weer wala ci ndax nga tànn waaye dafa tànn wenn weer shahru ramadan ne ñëpp nañu koy woorandoo jullit yëpp di ko àndandoo kon ponk boobu bennoo feeñ na ci ba ci aj màkk aj màkk ñaari weer ak fukki fan la daanaka <coughs> mooy li mu aj bu ñu wooree rek aji weer yi tàmbali na waaye wut boo demee ba ca mujj ga am na juróomi fan jàpp juróom benn yoo xam ne jullit ñépp ñooy bokk ndaw lu ñuy def di tàmbalee bu ñuy dem Mina Arafa ba ñaari fan wala ñett yi ñuy defaat Mina loolu lépp di wane ne kon aj benn bennoo feeñ na ci bu baax a baax yonent bi ci njaal beenagu lislaam ba mu gàddaay ñëw Madina dafa def jullit yépp benn lañu waaye ngir gën a bëgg a gën a a benn la leen dafa def lañuy wax mu aaxaat kenn ku ne mu ne la diwee sa mbokk ngir ngeen gën a mën a nekk benn te am na ñu ne sax Makka la ko tàmbali woon baynal muhajirin kon nag nañu nañu góorgóorlu bu baax ci loolu lislaam loolu la tëral sëñ Muntaxa nag day wax li mu koy faral di waxee ne balaa lislaama jag balaa tariixa yee jag lislaam day jag ba noppi kon dellu ci loolu lislaam santaane boo ko defee nag buñ noppee nag tariixa yi kenn ku ne xam ne yéen ñoo bokk fu nu jóge bokk fu nu jëm ni sa Abdou Lahad waxoon ne diw murit la wala diw tiijaan la wala diw xaajar la mi ngi mel na ñett ñu bokk nday ak baay ñett ñu bokk nday ak baay bokk fanaan ci benn néeg mu ne ku ci xëy bëgg a tàmm sa morom sa bopp ngay tam kon loolu itam mat di ko bàyyi xel bu baax kon nañ kon loolu daal mooy mawduu bi nu war ko jox sëriñ bu Bousso Hassane mu waxtaane ko bu noppee sëriñ maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa Ba ji jiite AIS e jamaayatul islaamiya li xidmati tasawuf jiite itam xuddaamu turaas ñu bari xam ko ci pëstéefam maanaam wàll gii liggéey bu mu ci liggéey bu am solo muy lu benn la jullit ñi rawatina waa tasawuf loolu it lu am solo ndax wolof day wax na bàyyi ci say óom li la gën a jege ci ngay tàmbalee defar ba noppi soo ko dem ca la ca wàlla lii wolof di wax buñ ne diw baax nañu ne ndax bokk yaa ko wax ndax booy rafetal li la gën a jege ci nga war a tàmbalee muy yaatu nag ba ba daj kon buñ noppee danañ ko jox kàddu gi mu indi ci dolli ci lu mu ci mën a dolli buñ noppee itam ku mel ne sëñ Muntaqa Jatara ak boroom xam-xam yi ci jataay bi sëñ Moustapha Diop Kokki ngi fi sëñ Chouaïbou kefe Kebe lu ñu waxtu yi may rek ñu ñu ñu jox leen ko insha allahu taala kon sëriñ Fallou Bousso Hassane bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi loo ngi yëkkati sunu nuyoo ñu nuyoo bi lislaam jëme ko ci mboolem ku teew jataay bi ndokkeel mboolem jullit yi ci weer wu màgg wi nga xam ne nii ci lañ dugg di nuyoo beeg ndokkeel geeg ñaan gi ñu jiitu Cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam lil muridin ñaanal ko borom yàggal ko fi mottali ay yéeneem toftal ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu génn léegi Moussa Modou Fadal nekkoon jiite jataay bi ak Cheikh Mouhamadou Abdoulaye mi nga xam ne nii moom la fi bàyyi ñu teg seen loxo ñu tegoon ñu ci mboolem nga xam ne ñoom lañu seqal académiyatu minal baqil qadim lil ulumil islamiyya di nuyu ñëpp di sargal ñëpp di nuyu sëñ Basiir mi nga xam moom bokk jataay bi ak sëñ Maxtaar mi nga xam moo koy idaara ak sëñ maam Cheikh mi nga xam ne ni moo wara a mottali waxtaan wi kon ñoo ngi nuyu ñëpp ci nuyoo lislaam te mooy jàmm ak. yërmande ak barke ñaan sunu borom tasaare ko ci àddina bépp waaye rawatina fi nga xam ne ni ay jullit ñoo fa dëkk réew yi nga xam ne ay jullit ñoo fa dëkk muy réew yoo xam ne nii war nañ koy fàttaliku jamono ñu nekk rawatina suñ nekkee ci biir weeru koor ndax bu ñu xoolee àddina bépp réew yi jullit yi féete fa la jafe-jafe yi gën a bare xeex beeg xeex boo xam ne ni doo xam lu ko waral rayante bu jéggi dayoo mu jur ñàkk goo xam ne nii jéggi na dayoo jur ak ñàkk a jàng ak réer waaye tam andi ay wéradi yoo xam ne nii mi ngi faagaagal ay junni junni ci jullit yi te bu ñu xool nag loolu lépp li ñu te marbatul faras te mooy cosaanul jafe-jafe boobu bépp mu ngi dellu ci kàddu gu taqalikoo wala boo kàddu gu ñàkk nekk benn moo indi mënatuñoo boole sunuy man-man moo indi ñu néew doole ndax kàddu su nekkee benn rek boole effort yi day daal di yomb moo tax ki ñuy jàmmarloo ñun di ko tuddee keneen te mooy ki nga xam ne nii lislaam neexu ko ba noppi mu wëlbatiku di ko xeex kookee ngànnaay li mu yore di ko xeexee jullit yi tey ngànnaay li ci ëpp doole mooy li ñuy wax te tasud moo di ne boo nekkee ak mbooloo te bëgg a nguur seen kaw bëgg leen a not da leen di taqale bañ tàqali ko bu ko defee ku nekk nga wéet moom not ko nguuru ci kaw nguuru nag bokkut ak kilifteef moo tax ñoom seen ngànnaay li ëpp solo mooy dañ fexe ba jullit yi di tàqali ko fu ñu toll di néew dool ñu mën leen ñu mën leen yilif ten war a bàyyi xel ci nag ni li fekk jullit nekk ñu benn toog di waxtaane développement wala ngay waxtaane progression wala ngay waxtaane sax woote bu ñuy woote jëme ci lislaam daanaka du am njariñ ndax ku nekk xam na ne salafu saalite mooy mag ñu baax ñi ña fa jiitu woon daanañ wax ne lislaam day la ko jagaloon ci njëlbeen gi dong moo koy jagal ci ak mu jëm te jullit yi naka jekk te mësta deñ seen force dëgg-dëgg moo doon seen kàddu nekk benn nekkoon ci làmmiñ yéen sallallahu alayhi wasallam lu mu masaan wax ñëpp def ko bi mu fi jógee xulafaa ur rasidun jóge dala ci Seydina Aboubacar Omar Ousmane ba ci Ali ku nekk benn kilif benn kàddu mooy am bu waxee ñu ci des dal koy jëfe kon néew doole ak tasaaroo mi ngi tàmbalee ci ba loolee jàllee ña ci topp topp ca di xëccoo nguur xëccoo àdduna ba tax ku nekk yor sa kàddu bopp foofa la néew doole jullit yi kon taqali ko kàddu mooy cosaanu néew doole jullit te moo ne yaakaar naa ne nag bu fekkente ñuy wax tawxiidul uluhi te mooy nangu ne yàlla ji ñu kenn dong la jenn yàlla buñ ko nangoo loolu war naa na suñuy melokaan suñuy doxi ndax fekkee ñoo bokk yàlla ji ngëm muy jenn alxuraan ji ñu mu wàccee ci ñun ñi ñëpp gëm nañu benn téere la yonent bi yàlla yonent ñun ñu gëm ne kenn la moom dong la kon ñëpp war nañoo bokk laaj lu tax kon ñuy taqali ko kon laaj la boo xam ne nii ku nekk war nga koo mën a laaj sa bopp xëy na yaakaar naa ne tam ni ko suñu aboo waxee léegi mooy sababa suñu tànn thème bi war koo waxtaane ñu rafet thème bi loolu nag santit ñi nga xam ñoo ko tànn ndax xam nañu di ko tax a jóg mooy yeete ak soññee ba ku nekk xam warteef yu gàllu saw loos responsabilité bi nga am sa digg ak xeetu islaam sa digg ak humanité ci boppam ak nite waaye sa digg ak génération yi nga xam ne ni ñu ngi ñëw ëllëg mu wóor la ne loo sàggan tey jii bu ëllëgee bis bu feeñee foofa responsabilité bu mag a mag nga ciy am te histoire dañ la àtte balaa la sunu borom di àtte ëllëg yowmal xiyaam kon tomb bi mooy bennoo ak xajoo ci biir jullit yi yaakaar naa ne sax du ñaari baat ndax xajoo dafa bokk ci keno yi nga xam ne ni mooy taawu benn jullit xëy dañ koy waxee noonu ngir mën a leeral mawdu bi waaye xajoo dafa bokk ci keno yi nga xam ne ni mooy taawu benn jullit xajoo ci ñi ko xamul mooy tolerance tolérance boobu dafa bokk ci ñi nga xam ne nii mooy taawu keneen ndax bu xajoo amul rek benn moom du mën a am te dañ ci dañ gën a leer kon dañ bëgg a tënki waxtaan wi danañ waxtaan ci solos bennoo tudd yenn ci keno yi nga xam ne nii buñ ci sukkandikoo mën nañoo amuk bennoo suñu biir waaye yenn ci gàllankoor yi nga xam ne nii mën naa gàllankoor bennoo ak jullit yi buñ noppee nag tëjee waxtaan wi ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak moom gis-gisam bi amoon ci bennoo ak loolu mooy toon ñett tomb yi nga xam ci lañ fas yéene tënk waxtaan bennoo solo si am boo doon xool rek doy na solo sëkk ñu ne jëfee ndigalu suñu borom suñu boo wax na ko léegi jàng na aay mu war parce que bi hamdulillahi jamii'an wala tafarraqu alxuraan moo ko wax ne na ngeen mooy ci buubu yàlla bi na ngeen bennoo te bu leen tàqali ko kon ku nekk xam ne ab jullit ndigali yàlla yi wàccuwaay ñu am ci dundu jullit ak diisaay ci am dox ci liy benn li jullit ak di ci jëf wax loolu jëfee ndigal yi suñu borom subhanahu wa taala kon jullit nekk mën ngaa bàyyi fekk su fekkee yaa ngi dox ci lenn di tàqali jullit wala nga di ca jëf wala nga di ca wax da la woon boo toll boo tuddee sa mooy moom ko kon li si njëkk solo bi njëkk mooy ne koy kuy dox ci li benn la jullit yi yaa ngi jëfee ndigalu sa borom xam na solo si am ci dund ak beneen solo bi mooy jamono ji ñu tëddee bennoo ci mënta ñàkk ci jamono ji ñu toll nii ndax jamono bi jox nit ñu gën a xàmmee mooy ñëpp dañuy booloo def ay groupe ay takkatulaat tey mbooloo yi nga xam ne ñëpp ñoo bokk jubluwaay wala bokk ñoo bokk gisin ñi ngi boole seen bopp def li ñuy wax fédéré seen effort maanaam boole seen man-man réew sax léegi àgg nañ ci benn réew jéematu demal boppam ñett réew wala ñeenti réew yi sosu yu nekk ñu bokk gis-gis yu nekk formé xam ne nii moo leen kon jamono ji ñu nii képp koo xam yàlla may na la xel te ngay jëfandikoo xel mi yaakaar naa war a nangu ne li ñuy wax dund kenn dund kenn dong loolu moom xel mën na koo xalaat waaye mënta nekk nit ki dund moom dong te du jëflante ak ñeneen kooku xel mën na koo xalaat waaye ci réalité loolu mënu ci nekk kon amul kenn koo xam ne nii mën ngaa dund walif ngay seet ak mbooloo dara te loolu alxuraan jàngale woon na ko bu yàgg ñoo xam ne nii ku nekk doo yéene sa sa jàmm waaye du yàqal sa morom te ngay nekk kon benn la gi lislaam benn la bañ nekk ay mbokk ni ko suñu ci xéewal yu mag yi nga xam xam na ko bu yàgg ñi léegi dañuy wax ne nit day ma boo xam ne nii mbooloo maanaam bàyyi ma la boo xam lañ ko mooñaale mooy mu dund ci biir mbooloo loolu kon dafay sedd li rek li alxuraan waxoon bu yàgg boobaag léegi ëpp na junni ak ak lu topp kon nag solo sos bu ko bennoo amee nit ñi di ay jullit war na loolu laaj suñu bopp ana ñun ana ñun ak benn boobu wax am na solo solo loolu tey bu ñu xoolee tey jullit boo gis la muy jéem mooy ñu mën a fexee lu tund ci kaw mbokkum jullitam ci kaw di ko wor ci kaw di ko nax ci kaw bu ko dénkee mu jalgate di jalgate yi ak xam ak yeneen comportement wala jikko yoo xam ne nii lu néew li ci gën a wax mooy ne ak métti ci boppam imaam métti ci boppam moo ko nanguwul te loolu booy xool suñu biir jikko yooyu tasaaroo ci ñun nag naxante moo tax tey bay sikki sàkk bari ci suñu biir jeexi a bari ci biir mbooloo ba kenn amatul confiance ci kenn te nag bu nit ñi amul confiance bu ñu ko amul suñu biir bennoo moom du mën a am bennoo mi ngi laytaay ci ku nekk wóolu sa bopp ci ne war naa mën a baax ñun ñëpp ñu war a mën a ànd loolu mooy tax bennoo bennoo mën a am waaye nag su ne jikko yi ma wax léegi tasaaroo la ci biir mbooloo mbooloo moo ne ngir ñu nekk benn dana jafe loolu bu ñuy waxtaanee bennoo nag ñun liñ gën a gëm mooy ne wuute ci xalaat wuute ci gisiin loolu lu mënta ñàkk ci mbooloo ndax dafa nekk ci lii riche maanaam lii richesse mbooloo mi li koy jox xiima dëgg dëgg xalaat yu wuute yu bari daf cee ku nekk indi xalaatam gisinam ñu wuute ci xalaat dafa am solo ndax mooy tax ñu mën a dox jëm ci gannaaw jëm ci kanam kon bu ñuy wax dañuy wax wuute gu ànd ak bennoo wala bennoo gu tegu ci kaw wuute wuute gu ànd wala bennoo gu tegu ci kaw wuute ñun ñuy waxtaan waaye bu ñuy waxtaan ci bennoo tekkiwul ni ñun a bokk li ñuy xalaat war a bokk li gis ndax loolu tam du lañ gën moo tax am na ñaari baat yu nekk ci arab dañ koy jëfandikoo di ko firee wuute te xëy na mën na am tuuti ak ak ak ak woroom muy xilaaf ak baatu ixtilaaf xilaaf nag moom mooy wuute gi nga xam ne ni moom woon mën nañ ko nangu te mooy wuute ci gisee ak xalaat waaye nag ixtilaaf mooy wuute gu jur xuloo ak ŋaayo ak ŋañeent buñ ko tàqaliwul nag léeg-léeg day jaxasoo suñu doxalin ci suñu biir ndax boobaa day jàpp ne wuute ci xalaat sax daa daganu te wuute ci xalaat moom daa mënta ñàkk ci mbooloo li ñuy bañ ci mbooloo mooy xuloo ak xasante ak ŋàññante waaye wuute bi tegu ci ay xalaat moom mën ñàkk ci biir moo tax am na ku ñuy wax Yusuf Qaradawi xëy nañ mën nañ ko nangu mën nañ ko bañ a nangu waaye daal ci jamono diñ toll nii ñuy waxtaan ci diine lislaam moom ci dellukaay yi ci la bokk man si na ko caa wax na ci benn téere wax ju mel lu am solo dafa ràññale diggante xilaaf ak ixtilaaf mu ne nit ñi war nañoo mën a wut am xilaaf wuute ci pas-pas sax mën nañ cee wuute mën nañoo wuute ci gis-gis ci wàllu àtte ci fiq wala yu mel noonu mën nañoo sax ba ci suñuy position politique ak ak yeneen xeet yi wuute yoo xam mënees na koo waaye nag nee na kañ lañuy ŋàññi loole mooy suñu demee ba wuute googu nar a mooy xuloo ak ŋàññante boobaa dañ koy daal di bañ moo tax mu ne nu xaalif wala naxtalif danañ wuute waaye duñu xuloo mën nañu wuute suñu biir ci giseen yu baree bari waaye nag tàqalikoo moom mooy jikko bi nga xam ne alxuraan daf ko ŋàññi di gën bëgg foofu li ci yokk rek mooy dafa am wax ju am solo joo xam ne nii bés bu dañuy wax ne mbooloo nekk te ñem benn xalaat doo nga mbooloo ma di waaye mbooloo mu nekk su ne bàyyi kenn muy génn xalaatam ñu ne kenn du fi amee xalaat benn xalaat rek moo fiy dox mu mbooloo moo tam ci xuloo xeex la ñuy mujj moo tax mu ne kon il faut dañuy bàyyi xalaat yi ñu mbëkkante ci seen biir suñ ko deful rek jëmm yi ñooy mbëkkante bu xalaat yi mbëkkantewul rek jëmm yi mbëkkante te loolu yaakaar naa leer na bu baax ci jafe-jafe yi nga xam ne nga am ndax bari na ci loo xam la ko taal mooy nga ba am sa xalaat ñu ne loo ko faxe nga am sa gis-gis ñu ne loo ko bu yàggee maanaam kurfa ñi mooy tal xulóo ba xeex ba daal di réew ma daal di yàqu moo tax bu ñuy waxtaane benn ci biir yi nañ bàyyi xel ne xalaat yi gis-gis yu wuute moom lu war a mën a nekk la waaye nag nañ nekk ci bennoo bu tegu ci wuute wala wuute kaa bennoo loolu ak waa dafa laa takkuñu kan lañu ne tafarraqu waxtalaf foofu lim lim fi jëfandiku baat ixtilaaf te mooy tàqaliku boo xam ne nii jur ak noonu kon bennoo am na solo mu am nag ay keno yoo xam ne nii gis nañ ne wala boog ay point fort la yoo xam ne nii mën naa bokk ci liy tax bennoo gi mën a li ci njëkk mooy ñu bàyyi xel ne bennoo ay ay dëgëral ay ay ay jéego ngay def jëm ci bi ci njëkk mooy il faut xol yi nekk benn balaa ñoo mën a waxtaane kenn bennoo day fekk xol yi nekk benn xol yi nekk benn nag la mooy nangulante te nangu dogalub yàlla ku nekk raxas sa nga jële ko yi nekkee benn boole objectif yi jubluwaay day yomb ay nit ñu nekk seen xol nekkee benn ñu àndandoo dox jëm ci mel bi day yomb te suñ nangoo ne suñuy xol nekk na benn suñuy objectif nekk benn boobaa nag boole suñuy man-man day yomb lool loolu kon ñu xam ne noonu lay demee wala boog ñu tàmbalee ko ci bennoo ci biir kër yi diine ci biir kër yi jëmale ko ci quartier yi jëmale ko ci dëkk bi jëmale ko ci xeet bi jëmale ko ci umma islam yi yëpp waaye nag toog fii di waxtaane naan nit jullit dañoo war a bennoo te kër goo ci dem këru diine goo ci dem ñoom seen biir sax nekkuñ benn ña ngay xuloo di xeex di xëccoo ci maanaam ci poñ poñ ci àddina tax ñu yàqante seen biir ba noppi ñu bëgg a toog di waxtaane benn jullit yi loolu wax ñu nax saay la doon loolu solo ngir jullit yi mën a nekk benn mi ngi tàmbalee ci kër yi na kër yi nekk benn yeneen di jàmm xol yi nekk benn dem ci quartier bi dem ci dëkk dem ci réew dem ci àddina bi mu doon lu yomb lool kon toog fii di waxtaane ne ñun ay dañoo bëgg waxtaan ci bennoo jullit yi ba noppi ñun suñu bopp ñu séddale def ay secte wala boog ay tawaayif maanaam kii ne man lii laa kii ne man lii laa kii ne man lii laa ku nekk ne maa gën saa morom loolu itam bu ñu ko defee wax dëgg yàlla loolu xel logique lu mel noonu nga di ko def ba noppi bëgg a waxtaan naan ne julli dañoo war nekk na loolu itam mënta nekk moo tax Alxuraan waxoon ne inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyan lasta minhum fi shay bu fekkee dañoo jël diine ji xàkk ay pàcc-pàcc def koy kuréel kuréel lan loolu moom leneen dafa nekk waaye lislaam moom nekkatu ko jóge na fi yàgg kon loolu bu amee li ñuy bokk na ci li ñu mën a dimbale ngir loolu mën a am pas-pas moo ci jiitu ku nekk fas ci sa xol te muy pas-pas bu sax bu wér ci ne nammeel ak suñu borom kenn mënu koo te am yàlla am kenn mënu koo te am lu ne du am koo te am taxaw na ma jox kenn mënu laa xañ waaye ku yàlla nar a xañ kenn mënu jox kon loolu pas-pas boobu bu saxoon suñu biir rek ni daal di xam ne soxor muy kiñaan wala sax yàlla baaxee ngi ne kenn nga di ko xool ba di ko soxore boobaa loolu dootu am place ko ndax da ngay wóor ni yow loola du tax loola te loolu bu amee nag yéene yi di daal di sell te bu yéene yi sellee xol yi daal di sell bu ko defee bëggante daal di mën a sos beneen bi ci toppit te muy bokk ku nekk bàyyi nga toog ci di def yow dong mënta jur njariñ bari mbooloo mu mënti doon balaa ñoo mën a jéggi benn jéego jëm ci kanam dañuy boole seeni man-man boole seeni effort bu ko defee doora mën a jox ku nekk kem na nga mane nga indi ko te ji yéene ci mbooloo mépp bokk jariñ loolu bu ñu defee yaakaar naa ne liggéey bi dina gaaw ndax mbooloo moo dem mu nekk la war a doxal mbooloo ma suñu borom def na ko te mooy xam-xam xel alal ak doole yaram mbooloo moo dem fekk ko kon nos ko boole ko rek moo ci am solo bu ko nosee boole ko rek dal di jéego buñ ñu bëgg jéego dañ ko mën a jéego yéen bi jàngale woon na ko ci xaddis bu leer nañ li muy waxee al muslim lil muslim kal bunyaanil marsuus yashuddu ba'duhu na jullit dañoo war a mel ne ak bâtiment tey jumaa ji ñu toog su fekkente ne ay mool lañ ko tabaxee mool yi ñu ko tabaxee par benn mool lay doon waaye dañuy jël mool jokkal ko ak moroom ja jokkal ak moroom jokkal ba nekk benn bu ko defee ñu ne jàmm ràbbaloo gi ñuy ràbbaloo moo tax ngelaw dootu ko mënal dara maanaam balaa nga koo balaa nga mën a jëfandiku leneen da nga sonn lool mooy nit ñi itam war a mel waaye nag. tey bâtiment bu mu mënti doon ñu tabaxee ko ay brique bu benn brique jékki-jékki woon bàyyi jàppatul moroom ja mu fett da ngay daal di gis mu feeñ te buñ ci waxul gaaw koo saafara mën naa dem ba bâtiment buy daanu di fett fett boobee ci lay jaay jullit yi kasaalek nag noonu la ñu war a mel war a jàppaloo comme ni brique yi jàppaloo nekk benn bâtiment bu ko defee ngelaw lu ñu a dara kenn du ñu mënal dara waaye nag bis benn jullit bu ma njëkk a bàyyi ne la wóoru ne bu yoo bu jul askan jullit bu fettee bu daanoo ëllëg na la war a ne kenn appelé wu la ci responsabilité loolu dañ joxe misaal ci xissa bu siiw boo xam ne nii xëy na ñu bari dégg nañ ko ci mag moo xam ne nii demoon na ba naagu ci boppam dajale njabootam ngir am lu leen jàngal ci àdduna daal di wut ay mat takk ko mu diw say mu boole ko mu diw say mu jël ko jox ku nekk ne ko dammal ku nekk jéem jéem damm ku nekk xam ne damm say mat nga dem ak sa tànk yombul ku nekk jéem ba sonn mënoo ko damm mu daal di jëlaat say tàqale ko jël par genn mat ku mu jox ne la demal nga damm mu yomb ci yow loolu mu dem mu leen nag mbir maa ngi noonu su ngeen booloo nekk benn de kenn du leen mën a dara waaye nag bis bi ngeen tàqalikoo moom ku leen bëgg a jëfandikoo dañ leen jëfandikoo ndax da ngeen di néew doole bu boobaa kon ñun jullit ñu war a bàyyi xel ci ne suñ moom kenn mëna luñu dara waaye nag bis bu ñu tàqalikoo moom dañuy perte lépp ndax dañuy néew doole beneen bi ci topp te mooy li ñu doon wax léegi xajo xajoo boobu ci ponk yi taaw benn jullit yi ci la bokk xajaloo bu ñu wax dëgg-dëgg te mooy tolérance war warta yem rek ci nit ki bañ a xatal moroomam wala bañ koo def lu koy naqari wala bañ a jalgati ak waaye dafa war a nekk mbir moo day àgg ci nit ki ci boppam lépp lu muy xalaat bépp xalaat bu mu yor wala bépp jëf ju am wala bépp wax joo xam mi ci xelam mu war ko wax te mu wóor ko ne bu ko waxee teraangay moroomam ni mi ngi dana ko def su ko waxee la koy jox cëru ma nga dana ko def la koy sàmmal ay droit ma mu nangoo leen dimbalanteeg moom nangoo jaxasoo ak moom surtout nangoo jaxasoo ak moom ndax bari na ñàkk benn yoom la ko waral mooy séddale askan wi def leen ni tabaxaat ay kas maanaam ay classe nan ñi ñii ñii di ñu def ay groupe maanaam groupe bu nekk ñooy jëf leen seen biir boobaa benn du mën dañoo war a nangoo jaxasoo ci suñu biir xam ne ñëpp ñoo bokk ay wàccuwaay ku nekk xam ne war ngaa mën a jaxasoo sa moroom loolu moo indi kii loolu la koy jur mooy ñu nangoo jéggalante waaye itam am ku mbooloo mu nekk day am ñoo xam ne ni ñoom bu xëccoo nare am ñoom dañuy njëkk bàyyi dañuy bàyyi ndax bu kii xëccee kii xëcc rek mbooloom day dagg te bu daggee mbooloo ma tas Muawiya jàngale woon na ko ne woon ne benn karaw moo dox sama digg ak mbooloo mi gi du dagg benn karaw li muy nee na du dagg mukk ndax ñu xëccee ma bàyyi buñ bàyyi ma xëcc du yolom du ëpp du teeg loolu tam ñu war koo bàyyi xel kon mbooloom ngir benn ko maanaam il faut ñu am ñoo xam ne ni léeg-léeg dañuy nangoo bàyyi fekk ñu ci waaye itam dana xajoo gi dana jur nga bëggal ko lu baax lépp loo gis ne lu baax la nga yéene ko foo fekk ñuy teg ci moom loolu su dul noonu nga défendre maanaam loo gis ñu bëgg koo teg ci daram wala ñu bëgg koo jëflanteeg moom te ci yoon nga nangoo taxaw défendre ñoom waxtanu xajoo nag mi ngi ci isaar isaar mooy nga dem ba sa moroom gënal la sa bopp loolu ñëpp mënuñ jàgg waaye nag ñëpp dañoo dox jëm ci mooy nga dem ba yow li nga yéene sa moroom mooy ëpp ci lu baax foofu yow la nga yéene sa maanaam boo gisee lu baax da ngay njëkk xalaat sa moroom balaa ngay xalaat sa bopp loolu nag ña ci mën a àgg bëriwul waaye mooy ñëpp waxtanul xajoo ci biir mbooloo kon xajoo googu moom dafa war a nekk ci diggante nit ñëpp luñ wuute wuute ci ay couleur wuute wuute ci ay xeet kii nangam la kii nangam la suñuy pas-pas wuute ñun ñëpp war nañu jàpp ne doomu aadama yëpp ñoo bokk fu ñu bàyyi ko ci benn bakkan lañ suñu borom bind ñu ñëpp bokk bàyyi ko ci aadama seen aadama kon ñoo bokk fu ñu kon ñoo bokk lépp te alxuraan jàngale na ko ci ay yu bare bare kon lislaam moom gëm na ni xajoo googu dafa war a làmb àdduna bépp ndax tolérance bu làmb àdduna bi ci condition yi mënta ñàkk la ngir jàmm ma ne am ci àdduna bi jàmm balaa mën a am bi ñëpp dañuy nangoo am tolérance jullit yi mën ko seq catholique yi kat ma ñu naan daal muhim lu ñu wute wute ci ay pas-pas ak mel noonu ñu nangoo xajoonte suñu biir loolu kon kuy jàngale lu mel noonu kon biir jullit yi moom dootuma ta wax kon lislaam bëgg bépp melokaan wu tegu ci yoon nga di ko bàyyi si digg ak sa morom doo yam rek ci nangu ne moom war naa mën a nekk waaye da nga koy nangul ak nekkam ba noppi respecté aadaam ak cosaanam ndax loolu am solo bari na xuloo yoo xam li ko indi mooy a faagaagal aaday jaam ak cosaanam koo imposer sa aada nga nangu ne moom kat mën nañoo wut ci aada ak cosaan nga dem sax ba nangu ne na nañoo wuti ci pas-pas mën naa nekk lii ma nekk lii ñu nangu ne dafa ku nekk da am ses particularités maanaam ci wàllu civilisation ku nekk am na lu ñuy xàmmee loolu tamit nangoonte ko suñu biir lu nag nangul ko sa morom nangul xajoo googu nag kon day weesu jullit yi sax dañoo jëlale jullit yi waaye doomu aadama yi ci kaw suuf ñëpp xajoo googu dafa war a nekk ci seen diggante moo tax alxuraan di ñu jàngal ne laa yanhaakumullahu ani alladina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin même ñu bokkul ay yéefar lañ dañ leen tudd ay yéefar wala almahim daal di ñu ay jullit ñooñee su fekkente ne yàqaluñu dara jéemuñ ñoo yàqal suñu diine jéemuñ ñoo xeex jéemuñ ñoo def dara lislaam li ñu sant mooy ñu nangoo ànd ak ñoom ci liñ bokk ñu ànd ak moom ku nekk nag boo sa pas-pas loolu la ñu lislaam jàngal kon nag diine joo xam ne loolu lay jàngale ci wàllu tolérance ak xajoo defe naa ne war naa mën a bàyyi xel bu baax njabootu bu boppam gi nga xam ne nii ñoom ñoo ko moom kon xajoo googu ci tànk yi mënta ñàkk ci benn jullit yi ci la bopp beneen bi ci bopp bi ci toppit mooy ñu ñi di ay jullit ñu xam ne li ñuy boole moo ëpp fuuf li ñuy tàqale ndax yaakaar naa waxoon nañ ci ñëpp benn waxtaan ñun ñëpp nangu nañu yàlla ci ngëm jenn nangu nañu alxuraan ji ñuy jàng jenn nangu nañu yonent ci benn la te loolu mooy cosaanu diine buñ ko xasee nangu na kon la ñuy wuute ci ay nangami yooyee gis ci nag moom loola war na noo mën a xam ne waruñoo mën a tàqale kon yooyu benn la ci yi nga xam ne nii mën nañ koo tënk ci tànk yi nga xam ne nii mën naa indi benn ci biir jullit mu am nag yoo xam ne nii day gàllankoor benn jullit yi wala boog ku nekk laaj lu tax jullit yi mënuñoo nekk benn loolu tam ba tey laaj la boo xam ku nekk war nga koo mën a laaj sa bopp ku nekk it mën ci am gis-gis sa gis-gisu bopp boo xam jàpp nga ni moo tax jullit mënuñoo nekk benn waaye am na luñ ci gis yoo xam moom lañ bëgg a tudd fii tuddee ko moo yu xaat wax te mooy yi gàllankoor benn jullit yi bi ci njëkk mooy ñàkk gu ñuy ñàkk dégg lenn ci teg si mën naa nekk aaya quran wala xadis léeg-léeg dégg ñu ngay déggee day xat ba indi tàqali ko siw biir ci misaal am na xadis bu siiw boo xam dañ koy jàng yeneen bi wax ne yahuud yi tàqalikoo nañ juróom benn maanaam chrétiens yi dañ tàqaloo ko juróom-ñaar fukk ak ñaar daal ne ummat yi dana tàqalikoo juróom-ñaar fukk loolu ñu bari bu ñu koy jàng dañuy jàpp ne kon jullit yi tàqalikoo moom lu naturel la maanaam ba di la maanaam jëru sax xalaat daa war a nekk noonu la ngay dégg te loolu ci déggin wu xaw a juuni ci xadis bi la moo tax bi ñuy gis gis nañ borom xam bu ci wax wax ju am solo ñoo xam ne ñu koy rotal fii dañ bokk taag moom gis-gis moom nee na yonent salaasam dafa jëfandikoo baatu yahud jëfandikoo baatu nasaara daal di jëfandikoo baatu umma jëfandikoo baatu muslim jëfandikoo ay julli waaye umma la jëfandikoo mu ne loolu nag li ñuy tekki mooy ñaari xeeti umma moo am ummatu daxwa ak ummatu istijaab nee na ummatu daxwa mooy bi ñu xasee yónni yonent salaasam ci kaw suuf ba mu xasee wàcc ci kaw suuf yónni ko ba keru àdduna bi tukki képp ko fi ñëw liñ yónni yonente bi ca nga bokk kooku mooy yàgg bokk nga ci daawoon ummatul istijaaba mooy ñi nga xam ne ni nangu nañ dugg ci lislaam ñoom ñooy ummatul istijaaba kon noonu lu ko leer mu ne léegi nag kon xadis bi lu tax yén sala jëfandikoo baatu umma mooy ne kon moom umma yi tàqali ko mooy nee na yahud yaag nasaraan yaag ñu gëm leneen lu dul lislaam ñëpp ñëpp dañuy dugg ci biir umma boobu nga xam ne ni ñooy def ay pàcc pàccaat waaye nag milla milla bi mu jëfandikoo ci jeexital xadis ba te mooy millati milla mooy islaam kon lu luñ mën a wuti wuti ci xalaat luñ mën a nekk-nekk ay kuréel kuréelaan ci biir ñun ñëpp ay jullit la kon kenn amul sañ-sañu génne keneen ci lislaam ji ndax ne ab muxtasila la wala sian wala wala sian yi la wala wala xawaarij la wala mel noonu déedéet ñooñu ñëpp dañuy duggaat ci biir milla kon umma bi ñëw ci xadis bi li muy tegtale mooy mbooleem ñi nga xam ne nii feeñ nañ ci gannaaw bu ñu yónnee yonente bi te dugguñ ci diine ñooñu dañuy dugg ci biir umma bi mu ñoo ñooñu nag ñooy pàcc pàcc yi nga xam ne nii moom la xadis bi di wax kooku noonu la ko rotal daal nag buñ ci amee déggin woowu moo ñuy may ñu mën koo booleeg yeneen texte yi nga yeneen xadis yi nga xam ne nii yonent bi wax na ko te buñ ko dégg buñ ko déggee wut nii dégg xadis boobu day jafe ndax ñëw na ci xadis yoon sa wax ne képp ku dajeeg yàlla ci ngëm yàlla des yow nga bokk te bokkaale ko kenn da ngay dem àjjana loo wuti wutee yow xalaat li fekk weddiwuma yàlla andiwuma bokkaale ci yàlla mënuma génn ci lislaam kon kuréel yooyu ñu tuddee ay kuréel bëgg leen a génn ci diine ji ba tax ñu jàpp ne kon maanaam war nañoo mel ay pàcc pàcc ñooñu amul kenn koo xam weddi nga yàlla amul wala nga indi leen loo di doon bokkaale kon yooyu donte nag am na ay njuumte xëy na yu ci am ci biir loolu njuumte ci wàllu xalaat dañoo war a toog discuter ci waxtaan ci gindente ci ku nekk am say argument yu leer nañ bu ko defee ku mën a yey sama morom ci wàllu argument ngay waaye kenn amul sañ-sañ di génne keneen ci lislaam ci ndax ne bokkut ak man gis-gis te it baatu umma bi noonu lañ ko war a mën a dégg kon gàllankoor bi njëkk ci euh, ñàkk nekk ci maanaam gàllankoor bi njëkk ci nekk julli ji benn mooy li ñuy déggee texte yi maanaam kon aaya quraan yi wala xadis bu mën doon wala waxi mag ñu baax njëkk ñi dafa laaj ñu koy nafaraat di ci xalaataat baax am ay déggin yoo xam dañ koy dégg ndax ñëpp yaakaar naa la leen taxoon jóg mooy defar waaye amu ci kenn koo xam ne nii xàjjale moo la taxoon a jóg beneen bi ci toppit mooy gis nañ ne bennoo du mën am li fekk lii mi ngi am ñu ngi jàng ay aaya ak ndigal ko jàng di ko jàpp ay ñaan yoo xam ne nii dañ koy ñaan rek ku nekk boo amee soxla dem jàng alxuraan wàcc ko ñaar yoon ñetti yoon daal di ñaan sa aajo ñu ngi doxale noonu ak ak alxuraan li ci aju maanaam dañuy échec maanaam duñ mën a benn ñaata yoon ngay gis barab buñ toog wàcce fa téeméeri kaamil wala téeméeri kaamil lu toog te ci biir wàccam kaamil boo ko doon déglu gaa yi da nga ci dégg goo xam ma nga yàq mbokkam jullitam da nga ci dégg goo ne ni ci biir fa muy toog jàng alxuraan fa lay fexeelu nu naxe moroomam jullitam ba noppi mu jàpp ne alxuraan yooyu mën na ko amal njariñ nekk kon alxuraan ji ay ndigal ak i tere moo ne ci biir kon bépp ku buñ koy jàng war na noo bàyyi xel ne lépp la muy jigle dañ ko war a def lépp la muy tere ñu bàyyi ko waaye nag tari nii rek daf koy ñaan li fekk ni nga koy jàppe noonu duñ ko mën a jëriñoo bis bu set nga dégg wala nga dégg ku jàng wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo dangeen di yonjox yonjox ci ñi ko xam mooy da ngeen di échec da ngeen di échoué ne bu leen xëccoo ndax bu ngeen da ngeen di yonjox te da ngeen sonn ba noppi seen coono dana dem ci neen loolu bi set ñu jàng ko wala kenn jàng ko nga dégg te moo ne saa yu ñu xëyee gis ñaari jullit yu taxaw di xëccoo ci loo xam ne nii boo ko doon comparé par rapport défi yu mag yi ñuy xaar amul benn valeur ñuy xëccoo ak a xeex ak xuloo ci loo xam ne nii boo ko comparé défi majeur yi nga xam mooy xaar jullit yi amul sax valeur tey xoolal li ñuy xaar ci njàng tey réew mi àddina bi réew mi jullit ñoo ci gën a dellu gannaaw ci wàllum njàng booy xool façon jàngale bi ñuy jàngale ci façon jàngale yi gën a dellu gannaaw ci la bokk muy défi bu mag boo xam ne suñu kanam ñu war a xool nuñ koy réglé dañ ko fay bàyyi tey wér gi yaram nga xool tey jullit yi feebar yi leen di faagaagal nga xam boo demee ci yeneen réew yi ñoom amatu fa rey nañ ko ba mu jeex tey choléra réew jullit yi ñu ngi fi rey du jeex yeneen réew yi dootoo fa dégg lu mel ni yeneen feebar yu bare bare yoo xam ne nii mi ngi faagaagal jullit yi ñu war cee xalaat ni ñu ko fi jëlee suñu biir ba nit ñi mën a am dund wér-gu-yaram mën a jaamu yàlla duñ ko def dañ ko daan ñëpp dem ci ay détails yoo xam ne nii maanaam tekkiwu lu am solo tey suñu bunyee taxte mi suñu infrastructure yi ñu war cee xalaat naka lañu amee infrastructure yu baax yoo xam dana méngoog doxalin bi jàmm àdduna laaj lay ñu mën caa dox ci aw yoon duñ ci xalaat dañ ko fa naan kub dem di xuloo ci kon défi yu mag yooyu ak xam ne ci war a xalaat dañ ko fa naan ñukk dem di xëccoo ak xuloo ci yeneen léegi da gis ñaari réew jullit yoo xam ne nii benn parcelle suuf bu ndaw nanga mi kilomètre ci suuf soo xam dara mën na caa bañ a nekk sax moom la ñuy xëccoo ku nekk ne maa ko moom kii ne ko moom ñu songoo ci guerre alalis réew ma yépp ñu jël ko jënd koy ngànnaay rayandi seen biir te suuf sa amul benn njariñ ñu bàyyi la njàng ma bàyyi wér gi yaram nga bàyyi xalaat yépp di xëccoo ci dog it suuf boo xam ne ni kenn xamul lu mu doon ay frontières yoo xam ne dañ ko rëdd rek gëmloo ñu ko ñu gëm ko nekk ci xuloo ko xeex fàtte li ñu war a ñun loolu mooy ñoo ngi jàngal xaan waaye xamuñu jëfewuñu léeg-léeg gi sax ñuy def yeneen yu gën a doyoon day gis ñaar ji di toog di xëccoo di xuloo kii daa am sikkim kii amul sikkim fi loolu mënta nekk lu asaasi ci lislaam ndax lislaam moom ci li li muy liggéey ci doomu aadama kenn mën koo dëkk sikkim yor sikkim ñàkk ñoo mën a boole waru a yi nga xam ne ni mooy xaar lislaam te ñun dañuy bàyyi yu mag yi fële nag ñëw di xëccoo ci yu mel noonu loolu nag li fekk ñu ngi a am kon war a xoolaat suñuy taxawaay léegi ci jàngat yi défi yi nga xam moo taxaw di ñu xaar ñu jéem a jàmmarloo moom jéem koo fajtal au lieu ñuy dem ci ay détails yoo xam ne nii fi lax dëxa mën ta nekk cosaan ci doomu aadama ndax nit moom wax dëgg yàlla li ñuy xool ci moom laa yansurullah ila suwarikum wa ajsadikum walakin yansurullah xulukum amalikum yàlla xoolul li ñu bi xool waaye mi ngi xool xol bi ak jëf ji ak melokaan bi kon yooyu defe naa ne du weddiwuñ ko nag ñun waaye waaye nag xam nañ ne tollu ci fenn fi bu war ñoo mën a tàqale en tant ay jullit li fekk dem ñun ku nekk yaa ngi xool si intérêt bopp sa njariñu bopp dong ngay xool ci mbir mu nekk maanaam bennoo du mën a am maanaam égoïsme wala boog anani ko ëpp li feeg mi ngi nekk suñu biir bennoo du mën a am li feeg tam ku nekk xalaatoo lenn lu dul àddina bi sa àddina kese kese moom nga teg sa kanam noo ko réglé dong ngay xool bennoo du mën a nekk moo tax bàyyi xel sa moroomu jullit donte sax la léegi mën naa doon loo xam ngaañ lay doon ceew waaye nga xam ne lii moo ëppal njariñ mbooloo mi nga xañ ko sa bopp ngir mbooloo mën a jariñ loolu mën na ñàkk ci mbooloo su fekkee bëgg nañu bëgg nañoo nekk benn waaye su fekkee dañu ne kat li ñu koy faral di waxee ñun ci wolof léeg-léeg ñu naan la njariñ loo fekkee wala yu mel noonu loolu li feeg baat yooyu li feeg mi ngi tasaaroo suñu biir a ndax tey ñu liggéey sax dañu liggéey ku si néew koy jariñoo dem fekkuñu fekkewuñu kon loolu maanaam analyse boobu danañu xam bennoo kon yooyu benn la ci nga xam ne nii mën na noo xañ bennoo suñ bennoo nag daf ñuy jural lu baree bari bi ci njëkk mooy ku nekk da nga yëg ne am na mbokk mu taxaw sa te loolu dafay renforcer moral doomu aadama nit bu ko wóoree ne moom lu ko mën di dal ci àddina bi dina am ay mbokkam yoo xam dañ taxaw jàppale ko li wàcc sa kaw lu mu tiis tiis tiis bu say mbokk sa kanam ànd koog yow tiis day woyof kon uxuwa mbokkoo googu buñ nekkee benn day daal di fés te bu jullit yëpp nekkee benn defe naa ne loolu dana faj te ñu bàyyi xel ci nag ne bari na tiis yuy dal ab jullit fu mu amee rek xamal ne am na jullit yu ne ci wetam te defuñu lañu war a def bu fekkoon tey jullit nekk yaa ngi def li nga war a def benn jullit bi tumuraanke loolu moom lu leer nañ la ndax li ñu yor ci alal yor ko ci man-man yor ko ci kàttan xajul ci suñuy soxla waaye nag ku nekk dangaa ngaa toog ak la nga yor nanguwoo ko bokk kenn loolu moo ko tey boo xoolee tey ci benn réewum jullit ñaari nit faatu sa kanam nga laajte kii lu ko rey ñun la kii xiif a ko maanaam ñàkk lekk amul lu mu dundee xiif ba faatu keneen ki boo laajee lu ko rey dañu naan kii daa fër daa lekk boobu lekk boobu ko rey ndax maanaam plat yu bari yu muy teg lépp ëpp rek loolu contradiction la bu am ci biir yoo xam ne nii fi la xel fekk ngi am waxtaan ci bennoo moom nga gis mbokkum jullit mu faatu ñun la ko faatu ñun la ordonnance dix mille francs daa sibr te nit denc ay milliards jullit a ngi denc ay milliards ci banque bi doyewu ko dara te nu mu jël dix mille francs joxe ko ñu faj ko loolu li fekk mi ngi am fi la toog dañuy waxtaan ci bennoo loolu moom dana yéen loolu nag ñu ñëpp dañ koy tàmbali suñu bopp ku nekk la ciy sa warteef nga xool ko nga di ko def kon bennoo gi li ñuy njëkk a jural mooy ku nekk nga yëg ni am na ku taxaw ci sa wet fas la yéenee jàpp danañu may itam li ñu war a réaliser mën koo réaliser ci façon bu gaaw ci ak baax ndax ku nekk da ngay def la nga man ku nekk am na lu yàlla may nga xam ne boo ko defee njariñ la day fee ku nekk la yàlla may nga def ko kenn sa moroom def ko bu ko defee lañ bëgg dañ ko gàggal danañ gañe waxtu tam ndax lu kenn man ñaar ko tax dañ koy fara di ci wolof kon bu ku nekk jëlee say responsabilité assumé ko ba mat sëkk lañ bëgg dañ koy am boo boobaa tam dañuy séddoo rôle yi ku nekk li nga war a def nga taxaw nga taxaw fa di ko def bu ko defee lépp sotteeloo waaye nag bu ku nekk fuuyoo da nga soxla sa moroom te doo ko gis dana feeñal tam suñu force suñu force ndax bu nekkee benn moom kenn duñu mën a gañ kenn duñu mën a nott comme misaal mi ñu ci yet bi ñu joxe maanaam matt yi ñu joxe woon léegi rek waaye nag suñ tàqalikoo moom dama ñu lay yomb ñu gëmit ne benn googu dem ci la ngërëmul ci li ñuy jëlee ngërëmul suñu borom ngërëmul yàlla ci lañ koy amee ndax moo ñu ko digal te que yàlla bu la digalee nga def mu gërëm la te boo amee ngërëmul yàlla mooy pertatoo dara ci àddina waaye tam ñu gëm ne suñu borom maanaam jàng nañ fi baree ba ñu wax ne loxo yàlla mbooloo ci mbooloo la koy teg fu mbooloo nekk yàlla te ca loxo ñun ñu ànd mbooloo mu ànd te yàlla tax yàlla leen di sàmm waaye nag bu dàqale ko suñu borom toog seetaan leen bàyyi leen ak seetaan loolu tam kon buñ bennoon ndébal sunum danañ ak yeneen yoo xam ne nii xëy na euh, ñi ciy ñëw danañ ci ñëwaat ci kanam tuuti fi ñu koy tëjee nag xëy na mooy wax tuuti ci sëriñ bi radiyallaahu anhu moom ñu liggéeyee woon ci benn julli ak ni mu ko gisee woon ak ni ko jàppoon foofu itam dañ ciy indi loo xam ñu ko jëlee ci téere boo xam ne nii suñu Murtadaa Mbàkke moom suñu Seex Faati Taal moom Daaru moo ko bind tuddee ko al muridiyatu ba trois ak daf caa bind benn texte boo xam ne nii dafa tënk lépp dafa wax ne sëñ bi moom jullit yi jamono ju nekk ak saa su nekk barab bu man di doon ak jamono ju mën di doon nee na foo ma sa fekk sëriñ Tuubaa ay soppeem mooy jullit yi ay mbokkam mooy ñi mbokkal ci yoonu yàlla nee na yitteem ji njëkkoon ci kaw suuf te mujj ci kaw suuf jan yitte la amoon ci kaw suuf moo ci njëkk moo ci mujj nee na mooy xett li jullit yi nu mën a fexe ba xett li jullit yi ñu génnee ci réer génne ci cànkute waaye mu génne leen ci alkane te mooy ak mooy yàlla yóbbu leen ci leeru xam-xam ak ak mucc ba faaw ci kanam keppaar suñu borom taal wa taala loolu bind ne seen bi loolu moo doon yitteem ci kaw suuf moo tax nee na yëngutu yi mu daan yëngutu yëpp yëngutu boo ma saan gis ne ni mu koy mi ngi daan inspiré woo ci yëg-yëgu lislaam yëg-yëgu lislaam bu ñu waxee mooy yëg-yëg bu ubbiku lislaam xamul ay secte secte yi ñu ko def nii naan man lii laa kii man laa loolu ñu ñoo ko fendi waaye lislaam amul cosaan amul ci lislaam cosaan amul cosaan ci lislaam lislaam gëmul barrière yi nga xam ne nii ñoo ko créé ko fi kii sénégalais la kii saoudien la kii tubaab la kii franc kii nangam ak nangam loolu suñu création la bokk mu ne kon moom sëñ bi barrière yooyu nga xam ne nit moo ko teg wala secte yooyu nga xam ne ay nit ko créé noonu nee na sëñ bi nee na daawul gisee noonu ci l'islam nee na l'islam bi mu gisoon mooy l'islam bi dugg joo xam ne nii képp ko asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah yaa ngi ci biir nee na lu ko daan def nee moo tax yoonu murid bi koy sos mësu koo jàppe aw yoon ci biir yoon yi waaye neen dafa jàppoon ne mooy lislaam ju set wicc yoo xam dafa laab lenn lu koy kooñ newut ci biir moo tax ni ko si aboo waxee woon léegi ci ubbite gi moom ba muy xam le murid yi ñooy ñan daf ne mooy al muminuun al muslimuun al muhsinuun nee na dëgg-dëgg day lay ngëm ngëm ngëm daf koy lay taay pas-pas day lay taay lislaam ñëw tegu ci ngirum tasawuf ngir tegu ci kaw nee mu dool a nekk jullit mu dool a nekk murid nee na moo tax murid mooy ku mel noonu mooy jullit bu mel noonu ba Seydina Muhammad ñëwee ci kaw suuf ba ci tey jii nee na képp ku mel noonu yaa ngi ci mooy man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati li xayra fi xayra bi mu ahsanu ni ko sëñ bi jànge woon léegi loolu defe naan mën naa tënk bu baax euh, sëñ bi gis-gis ñu amoon ci li benn jullit yi liggéey ci ne liggéey bu mag boo xam ne ni xay na sëriñ bi dana ci ñëwaat ci kanam tuuti loolu nag bu ko xoolee kon dañ koy tëjee mooy force murid wala boog dooley ma nga woon ci bennoo gi ak nangoo dimbalante muy melokaan yoo xam sëñ bi moo ko jëmbatoon ci magi taalibe yi ñu ko doon dund tey réalisation yu mag yi ngi gis yëpp yoonu murid ay dërëm benn ñaar dërëm ak ñaar dërëm yu dajale mooy tegtale ne mbooloo ñoo dajaloo def ko waaye du lu fa nekk loo xam ne nii kenn moo jël def ko wekk gi ñu bëggoon murid maanaam respect bi murid amoon ba kenn mësuta ñemee wax am murid di ca teg naka si dul noonu la ko mayoon mooy mooy mooy bennoo gi ak kàddu bi nekkoon benn bu njëkkoon amul kenn ku ñemee tudd yoonu murid di ci teg leneen kon nag bu ñu tey ba kiñ kiñ gën a sopp kiñ gën a fonk ñun ci yoonu murid nit ñem koo tudd teg ci loo xam ne kenn ko nettali boobaa war nañoo xoolaat ngir am na lu xew loo xam ne ni war nañ koo jàngataat ci suñu kon benn googu sëñ bi euh, jëmbatoon ci taalibe yi te yaataloon ba mu dem ci mboolem jullit yëpp loola murid boo xam ne ni sag murid ñor na la war nga cee liggéey di ko entretien entretenir ko maanaam entretien ko defal ko siyaana defal ko aar ko ba li koy songu ci ay attaques yoo xam ne mi ngi jógee ko mën a yàq waaye nag li mi gën a léegi mooy cong yooyu léegi ci biir yëpp léegi far ci lay jóge di daal ci kaw loolu nag mooy li nga xam ne ni kon xalaat bi foofu la gën a jub moo tax kilifa gu mag wax na ko bërki démb nee na waruñoo nangu kenn ku naan murid laa di tuddoo murid ba noppi toog ci keppaaru Sëñ Tuubaa di jël xeer di ko sànni keneen loolu moom ñun ñoo ko war a njëkk a bañ képp ku koy def ñun murid yi ñoo war a njëkk dal sa kaw balaa keneen dal sa kaw même suñ nangu woon sax ne keneen ka mag ñu koy def ñun waruñ ko def ndax baa fayantoo lay tur te nag tolérance te mooy xajoo booy xool nit ko am force dëgg dëgg dëgg mooy nit ku am tolérance nit ku am mën a xajoo waaye nit ku faible dëgg dëgg dëgg mooy nit koo xam ne nii fas yéene ñu ko def mu ne danaa ko fay loolu faiblesse la ci doomu aadama kon daal loolu lenn la ci li nga xam tënkoon nañ ko bëggoon ko ubbee jotaay ndax jàpp naa ne ni léegi jotaay bi jotaay waxtaan la war a doon ak weccoo xalaat ndax mbir la moo xam ne ni ku nekk mën nga ci am gis-gis mën nga ci am xalaat moo tax dañ koy ubbi da des sañu ñu bàyyi ko ñeneen indi seen xalaat di sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah